waaw génnu àdduna Mbaye Ndoye bi eh, lu metti la ci réew mi waaye jullit bu la yàlla tegee ndogalam danga koy nangu nangu moom mooy tax na noppaleku Mbaye Ndoye ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana di ma masawu ay mbokkam di masawu ñi nga xamante ñooy monde sportif yëpp di jaale ñëpp nag ci turu président Macky Sall moo tax bi ñuy commencé ñu wax ñu ko ci la ñu ko ñaanal te ñaan yooyu yàlla dina ko nangu biir nañu ne yàlla dina ko nangu parce que nit la koo xamante ne dafa nekkoon au service du Sénégal au service du sport sénégalais jàngat bu rëy nag lañ ci am moom laa wax léegi Alioune Sarr wax na ko président CNG ñiy jël kaddu yëpp wax nañu ko parce que bu ñu dajaloo pour di waxtaan ci wàllu tàggat pour lu jëmale làmb kanam balaa ñu koo tijji ci instant yi ñu wax ñu ne ku toll noonu ci wàllu sport yàlla moom na ko loolu li muy tekki mooy ku ci nekk na ànd xelam ku ci nekk na jéem a def lu baax ku ci ne na jéem a service réewam loolu rek mooy yoon wi nga xamante ne moom mooy jur jàmm te moom mooy jur ay seede yu rafet.